yoon boo xamante ni. Uh-huh. mag ñi également daan nañ koy def. Uh-huh. ci ki nga xamante ni mu ngi waaj a dugg ci borom kër. Uh-huh. ba ci ki nga xamante ni tamit dugg na bi ci biir. mu mu kiy gis ay tolof tolof yoo xamante ni lu ko yéem la. ba ci ki nga xam ne dugg na ba ci biir yàlla may ka sax njaboot. waaye mu gis ni njaboot gi kat dëng na xeetu dëng goo xamante ni mu mënut comprendre. wala tamit koo xamante ni dugg na ba ci biir pour mu am si njaboot sax c'est tout un problème. Mm-hmm. yooyu yëpp am na yoon boo xamante ne mag ñi également daan nañ koy. Mm-hmm. def. Mm-hmm. danaa ko si njàmbaas le temps ñu gën a ñëwaat am. ci affaire bi muy. mag ñi daan nañuy ut juróom-ñaari mètre per car. sept mètres. daan nañuy ut juróom-ñaari mètre per car. suñ utee juróom-ñaari mètre per car. ñu bàyyi ba guddi jot na ma koy waxee chaque jour. ba nga xamante ne suuf sedd na. Hmm. bu ko defee nga jàpp ba set. julli ñaari rakka. Hmm. booy jàpp ak booy julli yëpp yaa ngi koy defee nag ci kaw perkaal boobu noonu. Hmm. da jàpp ba set nga julli ñaari rakka. soo jullee ñaari rakka ba pare. li may waxee encore une fois sama waajo day ñëwati. nga def stafirullah stafirullah stafirullah nga def ko. cent onze fois mhm. soo defee istighfar cent onze fois mhm. nga def alam nashrah onze fois mhm. def isa jaa onze nga ñaan ci borom bi yàlla subhanahu wa taala bu dee moo gën ci yow yàlla na la yàlla jox bu dee yit ki nga xam dafa dugg ba ci biir sëy mu gis ni kat bëri na ay rëq-rëq yu ko ci fekk ñaan ci borom bi yàlla subhanahu wa taala rëq-rëq yi nga xamante ni mi ngi koy jànkonteel ci biir sëyam bii Mhm. yalla nako ci borom bi yalla subhanahu wa taala wallu si dindil ko ko mhm. Mhm. teggil ko ko ba mu jeex tak bu ki nga xamni tamit min ci sakku dom ci seyam ba amul dom ñaan ci borom bi yalla subhanahu wa taala li nga xamni bant la da nga xamni kat du bokul ci contrat sey mais nak mën nañu japp ni bonus la ci te kep kuy sey ñaan nga borom bi yalla subhanahu wa taala mu may la ci leer nga ñaan ko ci également léegi bon ba ma continuer foofu ba pare avant ma wax ci li may léegi bu ko defee. day jël. Euh, loolu noonu maanaam percal bi. su paree mu lem ko ba mu jëkk mu xooj ko ci ndox dem tëdd. su yeewoo. mu dindi percal bi weñ ko ba mu set. weer ko. ci ndox boobu. ut ci benn butéel denc. percal bi su paree mën na ko saraxe tout comme mën na ko sànni. mais na génn ci moom rek na génn ci kër gi. Mhm. benn yoon lay sangu ci ndox ba léegi lu ci des mu téye ci butéel saa su dematee ba jaaxle. Mhm. ba am tiis ba am tawat bu mu ci mën a nekk. dafa mhm. xeet naa fi lawaat ñaari rakka. defaat téeméer ak euh, maanaam téeméer ak fukk ak benn saa onze istighfar. mu jël ci ndox boobu noonu moo xam na ci naan wala na ci sangu. ñaanal ci suñu borom jaratul muy defaat comme la mu defoon ci perkal bi. loolu yoon la boo xamante ni. ku ko def amaana borom bi yàlla subhanahu wa taala mu fekk ci la ci mhm. léegi may ñëw tamit di wax ni mhm. na nit ñi xam benn affaire pour nit ki bañ ci sonal boppam jàpp ni force dañ ko liggéey moo tax lii am mhm. wala mu jàpp ni rab moo ko jàpp ndax lii am il faut que ñu comprendre ni borom bi yàlla subhanahu wa taala ni mu bindee nit te yamuñ maanaam ñu wuute tolloowuñ noonu la bindee nit ñi tamit seen wërsëg du tolloo. Mhm. noonu la bindee kii day am wërsëg kii du am wërsëg. Mhm. noonu la bindee tamit également ni kii dina rafet kii dina ñaaw ni man. Mhm. noonu la bindee tamit ni également ni. kii dina am borom kër kee du am boroom kër. noonu la bindee ni kii dina am soxna kee du am soxna noonu la bindee ni kii dina gudd fan kee du gudd fan. noonu mhm. la bindee ni kii dina am bant maanaam dina am doom kee du am doom il faut mhm. nit ñi comprendre loolu mhm. mais nañu waxante dëgg est-ce que am na benn nit benn nit boo xamante ni toog na ba am benn âge bi amul borom kër te neewuñ ko rab la wala liggéey fii Sénégal ça n'existe pas képp ku toog benn âge bi amoo borom kër wala nga sëy te amoo ci doom bul sonn jiñ lañ ko rab yi mbaa ñu jiñ ko liggéey bu dee ki nga xamante ni amoon na borom kër ba pare mu tiaxan ba yàq sëyam wala mo xam sax même bu tiaxanu bu amatul borom keur rek dañ nan borom keuram moko ko te pourtant meuna baña nek affaire da ngay xol logique pour logique tay gor yi déjà gor non la mel dinañu permettre après tamit ñu brosaale ci benen après tamit ñu brosaale ci benen côté bi li tax gor ñi takkul mais yow gor naturellement dafa bëgg lu bess du ñepp nak mais naturellement gor non la mel Mhm. góor dafa bëgg lu bees. ñu baal ma ci kadd yi des fois gars yi sax dañ naan mburu boo koy lekk da nga koy lekk famille xoy xoyamee moo daax mhm. tey dafa am ñoo xam noonu lañ def seen boo gis nañ ne nit bu xasee ba sëy ba tas rek mhm. gëdd gam doon am bul sonn dootu ko am je dis baax a loolu moo war a am mais dama ni ñu bari noonu la ñuy raisonner marchandise boo ko xasee ba jënd ba pare bu xasee ba génn ci loxo yooyu deuxième mais nay doon te deuxième main ala kulli al du am nit non lay fonctionner néew hmm. lolo wara am mais lolo la nit di fonctionner. loolu mooy dëgg marchandise deuxième main. mënu hmm. yemoo marchandise bu bees. Hmm. tey sama téléphone bi ni ni ni nii. ba mu koy jënd ba muy fess fi mu toll nii tey su ko doon jaay mënu ma ko jaay même prix. même bu fekkee léegi laa ko jënd léegi léegi laa ko jënd ci ci ci ci place bi mu bees dàq ak facture. ma utiliser ko benn cinq jours sax. téléphone bi dara sekku ci su ko doon jaayaat. du ma ci mën a am même prix bi ma ci am wala boog dina jafe loolu mm-hmm. mm-hmm. parce que yàlla moo bindee doomu aadama mu ngi raisonné comme ça mm-hmm. léegi yow bi nga amee borom kër nga xas ba génn ci sëy bi léegi lan moo war a tax nga jàpp ni boo amul borom kër rek foog nga dem seet yi benn benn Ibrahima Ndiaye ñu baal ma ci kàddu gi foog nga dem ci Ibrahima Ndiaye mu ni la waaw foog nga bàyyi moom faral ko xoolal nan la sa borom kër mu la dëjëk foog nga génnee sarax bi foog nga génnee sarax bi néew ma ni loolu amul mais c'est pas évident encore une fois mm-hmm. mën na bañ a nekk loolu mm-hmm. kon lépp lu mën a am laataa ñooy def dara nañu jiital nañ ci jiital suñu borom ni jàpp ni borom bi yàlla subhanahu wa taala moo ko bëggee nii ba pare mm-hmm. bu loolu amee après leneen lu luñ ci teg ñu doog ko ci mën a teg mambaay